day lijjanti mhm. waaye daal man xam naa ni ñama ca defaloon jotaay ñu waxoon ma ci yow bokkoon nga ci yow ak Mariama si nga ni ma woon premier mandat bi mu toog nga ne amu ah ni ma di nga ne ma dina am deuxième ca booba ma ngay lijjanti deuxième jamono dem ba mu am deuxième li may wax itam ku weddi li may wax demal seen flash vidéo yaa nga fa tege vidéo yi ma ngay naa leen xaw ma kan waaye ñun duñ dem baar <laughs> baar mi gaa yi xewal non nun duñ fa dem bëgguma dem baar léegi nag baar moom na jàll de ma jàll man kay dem li ma naa leen ku bëgg vidéo yi ma nga seen flash baar saw lay jëm de ndax man du ma jëm saw ndokk yàlla man penku laa jëm ndokk yàlla léegi nag Macky moom fi mu toll nii bëlki démb wàññi na dund yi ba tey jii man tey sama statut WhatsApp ñi ñu ñi borom boutique yi bañoon a wàññi seenug dund gars yi dañoo xëy tey dëkkal leen ci dëkk bi man am na ñu ci jot a ramas seeni marchandise ca boutique yaak yëpp moom laa def sama statut whatsapp man kon ñi ngi ciy doxi jéego waaye dama bi ma ko analyser dama ne ngóor si mhm. président est-ce que du troisième mandat la nekk di lijjanti tax mu wàññi dund gi ba pare teg ci application na gars yi jóg wàcc ci terrain bi xool ba xam ndax boutique yaa ngi koy wàññi wala wàññi wuñ ko ma ne nag léegi dinaa la ci laaj ndax gannaaw ca première ba am na loo waxoon deuxième ba nga am loo wax mhm. ngóor si daa mel ne troisième mandat la bëgg de nañ nañ ko dem xool dama bëgg nga waxaat man kay naa leen vidéo baa nga fee. te ba ñun duñ dem baar. waaw moom bi mi ngeeg yow. laay laay la laay mi ngeeg yow nañ ko teg ñu seetaanaat ko. te xool vidéo bi ñaata at la def. maa ngi nii kay kuy nëbbatu du ko wax. vidéo ngi fi mi ngi seen flash. mooy comme man ne ma naam ma la day day dem troisième mandat waxuma la ko woon. ah maire démb ngóor si woote ne soññaat na askanam soññaat na ak njabootam waa APR ne leen jaay leen maximum de cartes lu mu gàtt gàtt un milliard cinq cent millions de cartes la bëgg ngeen jaay ko kon moom day dem troisième mandat lay jëm moom. waxuma la ko woon. ba nga koy wax dadul woon tey li tax ma indiwaat question bi ndax damaa xool vidéo bi tey rek journal loolu lañ loolu lañ revue de presse. man koo xam ne dugguma ci ay corko corko. <laughs> Euh, dugguma ci benn te lépp lu may génne ci sama gémmiñ gi daf may leer. Mm-hmm. ko wax. seet. Mm-hmm. ku ci nekk am xam. am mm-hmm. xam mm-hmm. mais man li ma xam doy Sall du indi guerre mondiale ci dëkk bi. a la man kay lan ma waxoon lépp li tax ma indiwaat question bi indiwaat ko. nee naa la dina métti deret dina tuuru waxoon naa la ko. bu wér. sonko bi. Mhm. mooy deret bi ma la waxoon ci troisième mandat. Mhm. naa la dina am ku ko toog moom xaw ma sonko. boobu xewul. xaw ma sonko boobu sonko xewul. boobu sonko xewul wax day leer. wax day leer xewut. boobu sonko man xaw ma ko. xewut xewut kay man la troisième dina ko laaj waaye bu boobaa deret dina tuur. man la maire tro man la maire troisième mandat bu ko fi wax bàyyil ba deuxième bii. bul waxati mukk troisième mandat. nañ xaar ba deuxième bi jeex ba pare. nañ xaar ba deuxième bi jeex man la Macky Sall day dem troisième mandat lii wax naa la ko. wallaahi ñeenti at ci ren. waaw ñeenti at ci ren. boobu mhm. man xaw ma Sonko. Sonko xewut mer Sonko daaw la xew. boobu xaw ma Sonko nañu may jàmm tam man nee naa la lépp lu may wax. mu génn ci sama gémmiñ gi dafay fekk ne loolu dafay am lu ma xamul du ko wax te lu dul dëgg du ko wax. laaj troisième mandat bi. laaj na ko kay ndax li mu wax démb moom fi na jaay leen un milliard cinq cent millions de cartes. Ah, troisième mandat moom dina am moom. loolu moom ku bëgg ku bañ troisième mandat dina am li ma ngeen ci bàyyi xel. troisième mandat dina ma mu jot mu bañ a jot mais troisième mandat Macky Sall da koy laaj man nag duma Macky lu leer laay wax faroog moom sax nag faroog maag moom àndoog moom itam loolu moom leer na moom àndu maag moom. loolu man leer na ma man. loolu leer na la. Mhm. barki Modou Fada. wallaahi xam naa ci dara. ànduma ak moom mais dëgg da di dëgg. Mhm. li ma gis laay wax te dëgg la ci man. li ma gis mooy dëgg ci man ndax li keneen gis man xaw ma loolu. damay ragal mag damay ragal maki politique la pour nga teg la ci wetam nga di ko xoolal bagage yi. fi mu toll nii barki li ma gis man moom laay wax. Mhm. xaw ma ku xam Macky mais Macky day laaj troisième mandat loolu par la. sama dëgg sama baat bi nañ ko jéem a dëggal te képp koo xam ne yaa ngi ger ak Macky nga taxaw te di nga jàkkaarloog moom da ngay jàkkaarloog moom mbapat la mbëre bi mbapat la mbapat Macky Sall day mbapat ak ñoom fi nekk nii commencé na mbapat mi tàmbali na lu leer laa la wax Macky Sall mi ngi mbapat te mbapat mi tàmbali na su ma leen ko waxee bu yëbu ngeen bàyyi ci seen xel Macky politicien la ah aka aka fees waaw ak a baax gis nga lii xew fii fan yii yëpp ci mbappan mi la bokk lii yëpp ci mbappan mi la bokk problème yi ngi fii dégg yëpp ci mbappan mi la bokk tey yëpp ñu bàyyi xel mhm. ak ñoo bari cat ak ñoo bari cat ak ñoo bari cat su fekkee ne wàllu football bi mhm. ah, kër gu nekk su fekkoon ne mën na génne juróom-ñaari glace mhm. ak benn kaamil ñu génneel ko footballeur yi grâce ak benn kaamil yóbbu ko ci jumaa yi wallahil azim yàlla du tas suñu yaakaar wallahil azim yàlla du tas yaakaar nañ leen ko génneel kër bu ci nekk su fekkee bëgg nga coupe bi biir ci biir Sénégal nañu génnee benn kaamil ak juróom-ñaari glace suñ ko mënee def te yàlla tax ndax lii suñu alal la bu fi duggee suñu alal la te suñu succès la mm-hmm. suñu bonheur la kon nag kër gu nekk su fekkee mën ngaa génne benn kaamil nga yóbbu ko ci jumaa nga génne galaas juróom-ñaari galaas séddale ko tuddee leen ko suñu borom def tawféex jàmm rek jàmm njëkk jàmm jàmm njëkk jàmm mujj te alxuraan lu mu jiitu ñu am ci yaakaar loolu daal buñ ko mënoon a def moom ñu def ko su fekkee tam borom réew mi mi ngi may dégg mu daal di koy jéem a def rek séddale ko ci jumaa yi waaw loolu moom waaw loolu moom dina baax incha allah ci kattanu suñu borom loolu moom dañ ciy am ndam sax am naa ci yaakaar am naa ci yaqin am naa ci lu kawe sama njort aha mhm.